أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baal àq dañuy dellu si rek ci seen albordatul madix ñu ngi toll woon ci juróom-ñaareelu bunt bi tey bunt biñ fas yéene jël mooy juróom-ñetteelu bunt bi fii jihaadi nabi sallallahu alayhi wa sallam ci xare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy guerre sainte comme niñ leen ko waxee woon rek jihaadu nabi sallallahu alayhi wa sallam kenn mënu koo waxtaane ci benn barab waaye dañuy sukkandiku rek ci li imaamul busayri wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk na ñaar fukki xare ak juróom-ñaar am na ñu ni juróom-ñeent am na ñu ni ñaar fukk ak juróom-benn comme ni ko Seex Alxaaji Malik junje ci xilaas wika maghazihi yahdi mubridan kabidan ala xilaafin ataana min zawil qudumi ñii ne na wika muy vingt-sept ñii ni yahdi muy vingt-neuf ñii ni kabidan muy vingt-six ala kulli xaal xare na fukki xare ak juróom-ñaar wala juróom-ñeent wala juróom-benn ci wuute boroom xam-xam yi Seex Alxaaji Malik lim na yi mu ci lim abwaabu abwaabu waatun usayrun summa gazwatu safwaanin ba fa mu ne wa umratun lil qada fatxun xunaynun wa taaifun tabuukun li ruumi fi qusurihimi mu ne yii mu lim nag ba mu pare mu ni bi nafsihi qad gaza hazi bila kazibin fi tisi salla suyufan judna lir raxami nee na yii nii yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko xarel bopp maanaam bokk na ca ci juróom-ñeenti xare nag ci la bocci jaasi maanaam ci la xeex am mais yi ci des yépp ay kii la rek ay négociation ak plan yi guerre mais xeex dóorante jaasi amu fa ci neuf xare ci la dóorante jaasi am fi tis'i salla suyufan jut na leen raxami imaamul busayri nee na raat qulubul ida anbaau bicatihi ka nabatin ajfalat guflan min al ganami mu ne raat tiital na moom sallallahu alayhi wa sallam quluubal ida xoli noon yi lu leen tiital anbaau bi'satihi xibaaru ni yónni nan sallallahu alayhi wa sallam num leen tiitale mu ni dafa mel ni ka nab atin ajfalat xuflan min al ganami dafa meloon ni rek ka nab atin comme yëmb maanaam gaynde gu yuuxu bëm mu gaynde ajfalat boo xam ni tiital na xuflan ay way sàggan minal xanami ci ak jur ay kéwal yu ne ci àll bi di for jékki-jékki di di di for ci ñax meeg yooyu jékki-jékki rek dégg gaynde gu yuuxu bu boobaa nu ñuy def dañu tiit ba kenn du mën a natt seen tiit noonu la mu ni noonu la noon yi tiite bi ñu yónnee sallallahu alayhi wa sallam mu ni maa zaala yalqaahum fi kulli muctarakin xataa xakaw bilqana laxman ala wadami mu ni maa zaala deñul moom sallallahu alayhi wa sallam yalqaahum di taseeg ñoom fi kulli muctarakin ci bépp bërëbu xare xataa xakaw ba ñu nuru laxman yàpp wala xataaxa kaw ba ñu nuru bilqana ci sababu xeeju saxaaba yi sababu guntux ci sababu xeeju saxaaba yi laxman yàpp ala wadamin bu ñu teg ci kaw taabal moom daal saxaaba yi mayu ñu leen jàmm ba ñoom dañoo leena gëtal sonal leen ray leen ba ñu mel ni yàpp wu ñu daggate ba teg ko ci kaw taabal mu ni waddu waddul firaara fa kaadu yaxbituuna bihi aslaa saalat maal iqbaani war raxami mu ni waddu ngéeju nan alfiraara daw fa kaadu ñuy xaw sax yaxbituuna di ñee bi ci seen daw googu aslaa ay cër saalat yoo xam ni yëkkatiku na maal iqbaani ànd ak baaxoñ yi war raxami ak tan yi nee na yéeféer yi dem nañ ba mujj di ñee cër bi nga xamante ni cëru yàpp wala medd wala lu mën a doon bu ñu daggat ba baaxoñ for ko naaw ak moom yëkkati ko ñoom dem nañ ba di ko ñee ndax tiit gu ñu tiit saxaaba yi ak rey gun leen di rey ci xare yi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku nekk xam na ni xare yim daan xare yépp daf ci am ndam yin ko ci gaña tamit gaña ba du tax du nu ñuy wax noonu lu mel ni ki xaswatu uxud ndax xaswatu uxud li ñu rey ci jullit ñi ñoo ëpp li ñu rey ci yéefar yi ndax jullit ñi rey nañ ci luy tolloog soixante-dix yéefar yi liñ ci yow yaakaar naa vingt-deux rek lay tolloon te boole ceeg amoon nañu daw ak yooyu kon boobu xare mën nañ ni yéefar yi ñoom ñoo jekku woon waaye bu jàllee loolu yi ci des yépp ay léeg-léeg égalité am waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo gañ a xare yooyu yépp mu ne tamdi layaali wala yadruuna iddataha maa lam takun min layaali l ashhuri l xurumi mu ni tamdi ma ngay wey mi ngi dem allayaali guddi yi wala yadruuna te duñu xam iddataha limba maanaam duñu xam tay la lan ni nga mën a tooge tey ni tey la la vingt six onzième mois deux mille dix sept ñoom xamuñu ko maalam takun lu dul ni dafa nekk nekk min layaali ashhuril xurumi ci guddi ashhurul xurum mooy weer yi nga xam ni dañoo tere ku ca xeex weer yi nga xam ni dañoo tere ku ca xeex yeneen weer yi ci des yépp saxaaba yi duñ leen may jàmm ba ñuy tara fàttali ko tay la lan waaye nag bu ashurul xurum ñëwee ci la ñuy doog a dal tuuti pause xeex bi suñu borom moo ni inna iddata shuhuri inda allahi isna ashara shahran fi kitaabillahi yowma xalaqa alsamawati wal ard minha arbaatun xurum dalika diinu alqayimu fala tadlimu fihinna anfusakum ba mu kii wa qaatilul musrikina kaafatan kama yuqaatilunakum kaafa waalamu anna allaha maa almuttaqin nee na lu dul nii dafa nekk ci ashurul xurum yooyu ñoom duñu xàmmeeti bis yi ndax duñu ko dal ashurul xurum yooyu nag dañu wax ni dañu aaye ku ci xeex ñenn boroom xam-xam yi ni aay boobu nasx nañ ko ginnaaw ba après faqtulul musrik ci aay bi wax ni rey leen jaahidil kufaara wal munafiqina wala yeneen aaya mu ni ka annama diinu dafa mel ni ki diine dayfun gan la goo xam ni xal la wàcc na saaxatahum ci seen atu bi kulli xarmin ci bépp bépp sang wala boog bi kulli xarmin ànd ak bépp sang ilaa laxmil ida xarimin ka di aji buum buum mooy koo xamante ni dafa gëj a lekk yàpp soxla ko lool xarimin ka di aji buum ilaa laxmil ida ci yàpp noon yi maanaam yaramu noon yi rek dafay nuróole rek mu ni dafa mel ni diine gan la goo xamante ni wàcc na saaxatahum ci seenub at mel ni rek moom ànd ak saxaaba yoo xamante ni ni ñu nammee yaramu yéefar yi nga xam ni gëmuñu yàlla dafa mel ni rek koo xamante ni dafa toog ay ati ati at lekkul ndawal mu xëy xëy gis ndawal ni mi njëkkante ak ni mi demee ci moom te du ci demee xel loolu lay nuróoleeg saxaaba yi ni ñu meloon ci yaramu noon yi yajurru baxra xamisin fawqa saabiqati fawqa saabixatin yarmi bi mawjin min al abtaali multatimi mu ne yajurru ma ngay diri moom sallallahu alayhi wa sallam baxra xamisin géeju xare baxru xamis dinañ ko leeral léegi fawqa saabixatin ci kaw fas ya di way gaaw ndax fas yi ni ñuy dawee tàlli noonu la lay nuróole kuy féey yar mi ñuy sa yar mi muy sànni bi maw jin ci ay duus multatimin ya di aji fëggante minal abtaali ci ay jàmbaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéeféer yi dañ ko demoon ba di ko tudde muhammadun wal wal xamis muhammadun wal xamis xamis ci plan guerre dafa am lu ñuy wooyee alxamis ci stratégie bi dafa am boobu armée bi niñ koy tërale day am juróom day am juróomi ponk maanaam juróomi point bu njëkk bi mooy almuqaddima mooy équipe bu njëkk bi ñooy nekk ci kanam day am almaymana ak maysara day am ñu nekk gauche ak ñu nekk droite day am asaq ñoo xam te ñooy ne ca ginnaaw am lu ñu wax xalbul jays mooy digg armée bi loolu mooy nekk plan bi ñi ñi ñi nekk muqaddimam ñooy ñooy njëkk a song après ñooñu mën naa nekk am ñu nekk ñi yor fett yi rumaat yi ñiy sànni fett yi su ko defee nag am na ñu nekk gauche am na ñu nekk droite am na ñu nekk ci ginnaaw am na ñu nekk nag ci digg bi muy xalbul jeys xalbul jeys nag daanaka moom mooy ëpp doole buñ ko xisee tas rek daanaka armée bi dafay daal di tas loolu mooy alxamis baxru xamisin plan guerre la bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan teg jombul ni moom peut-être moo njëkk a indi boobu plan ndax arab yi dem nañ ba tudde ko muhammadun wal xamis wala tamit maanaam mu fekkoon fi plan guerre bu mel noonu ala kulli xaal xeetu plan la ci plan yi ñuy guerre maanaam stratégie yi ñuy tërale pour jàmmaarloo ak noonu yi loolu la nuróolee nag géej nuróole fas yi ak daw gi ñu daw ak gaaw gi ñu gaaw mel ni kuy féey ndax fas buy daw bu lu mu gën a tàlli rek fekk na moom mi ngi gën di daw lu bari nee na nag ni ñuy toftaloo di dem lu ñëw lu dem leneen ñëw ñuy mel ni ay duusi géej duusu géej moom fooy melale lu dul jeex rek mooy loolu ndax duusu géej bu daanu beneen jóg na mu ni min kulli muntadibin lillahi muxtasibin yastu bi mustasilin lil kufri mustalimin mu ni min kulli muntadibin ci bépp aji wuyyu lillahi ñeel suñu boroom maanaam wooteeg suñu boroom rekk muxtasibin kadi aji sàkku yool mu ni yastu ma ngay songu bi mustasilin ci bépp jaasi ba di aji faagaagal lil kufri ñeel ak yéefar wala boog bi mustasilin ci bépp jaasi ba di aji faagaagal lil kufri ñeel ak yéefar mustalimin ba di aji alak tamit lil kufri di ñeel ak yéefar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñi mu àndaloon ñooñu lay melal rek ni ñoom ñu ngi songu ñi nga xamante ni ga ay nooni suñu borom lan ci jaasi ju ñaw joo xamante ni day faagaagal ak kufru day alak tamit ak kufru mu ne xatta gadat millatul islaami wa hiya bihim min ba'di gurbatiha mawsulata rahimi xataa gadat dem ba mujj millatul islaami diine lislaam bi al milla mooy aw yoon wala dara waxiya ta mbir moomu millatul islaam boobu bihim ànd ak saxaaba yi maanaam ci bi musaaxabati saxaabati mawsulata rahimi lu ñu jokk ji ak mbokk la min ba'di xurbatiha ginnaaw ba mu tumuranke lislaam dafa ñëwoon tumuranke lool yéeféer yi ñu jàpp julli ñi di leen sonal ak di leen rey am ñoo xamante ni daanaka famille la dañ leen a rey ci jamono bi lislaam di néew doole bi mu doog a tàmbali muy sumayya ak famem ñii ñu daan leen mbugal mbugal yu metti ku mel ni Bilaal ibnu Rabaa kon lislaam booba tumuranke woon na ñàkkoon na ku ko jokk waaye mu ne mujj na nag ci taxawaayu saxaaba yi ak xeex guñ doon xeex ak yéefar yi dem na ba lislaam ñépp dugg ci ñu jokk ko bu baax a baax a baax loolu doy na ci seede ginnaaw fatxu Makka mu ne lislaam makfulatan abadan minhum bi xayri abin wa xayri baalin falam tay tam walam ta imi mu ni makfulatan ku ñu ku ñu yar la abadan ba faw minhum ci ñoom bi xayri abin ci ngën ji baay wa xayri baalin ak ngën ji jëkkër falam tay am falam taytam muy dellu ci baay mu ni falam taytam jirimuwul maanaam nekkul koo xam lislaam nekkul ku nan dafa ñàkk baay ba lu neex waaye def ko mu li walam ta imi te ñàkkul nekkul ar nekkul armal ku ñàkk jëkkër xaw ma caga lañ koy wooye xaw ma ndax baatu caga firiwul kiy jaay bopp mais caga mooy ko am jëkkër ñàkk ko moo xam jëkkëram dafa faatu moo xam dañ ko fase bu dee ci wolof waaye nag léegi bu ñu utiliser baatu caga mooy kuy jaay boppam waaye caga firiwul loolu ci wolof ci wolof mooy ku amoon jëkkër te ñàkk ko ku koy takkaat danaan ab caga la takk maanaam c'est-à-dire ku musa sëy moo tax mu ni mu nuróole ni lislaam yar nañ ko yor goo xamante ni ñàkkul baay yar nañ ko yor goo xamante ni ñàkkul jëkkër ndax baay fi mu war a taxawoo doom ak jëkkër ni mu tax war a taxawoo soxnaam ñoo ñépp ku nekk responsabilité bi ci seeni loxo la nekk mu ni lislaam nag noonu la ko saxaaba yi def ba ku ñëw mën ko fee fekk humul rija humul jibaalu fasal anhum musaadimahum ma za raa minhumu fi kulli mustadimin mu ni hum ñoom saxaaba yi daal aljibaalu ñooy montagne yi mu ni fasal na nga laaj anhum walif leen musaadimahum aji jàmmarloo ak ñoom mooy musaadama mooy mbëkkante maza raa lan la gis minhum ci ñoom fii kulli mustalimin ci bépp bërëbu xare bépp bërëb boo xamante ni daje nañ fa ak noom ya mu ni wasal na nga laaj xunaynan xazwatu xunayn wasal wala nga laaj badran xazwatu badr wasal wala nga laaj uxudan xazwatu uxud fusula xatfin xeeti faatu rekk xeetu dee lahum di ñeel yéefar yi adha moo gën a jommale sax minal waxami ci am mbas waxam mooy feebar boo xamante ni dafay faagaagal ab population mu ni soo laajee li xew ci xare yii ma la tuddal lu demee ni ki xaswatu xunayn wala xaswatu badr wala xaswatu uxud xeetu dee rek ni mu sonale woon yéeféer yi kenn xamu kenn mënu ko nattale xaswatu xunayn mu ngi nekkoon ginnaaw xaswatu fatxu makka ci atum juróom ñetteel ca gàddaay ga xunayn nag benn tur la bu nekkoon benn xur la mooy descente bu nekkoon diggante màkka ak madina ak taif taif ci côté madina la nekk ca la jullit ñi tasee woon ak mushrikoon yi daal di leen di gaña niki noonu badar badar mu ngi nekkoon tamit côté soriwut woon madina lool lool badar moom jullit ñi xeex nañ waaye ba ñuy jóg xeex taxu leen woon a jóg parce que dañ doon dogale ji benn njëggu abu sufiyaan maanaam karawaan boo xamante ni dafa defoon ay bagages yi waa màkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni leen dem leen jël ko parce que dañ leen a dàqe màkka ngeen bàyyi fa seeni alal seeni doom seen lépp te see ñee njëgg men yor seeni alal moo ca nekk ñu dem di ko dogale ji far yàlla mu doon ab xare bu rëy te xare boobu ci la ponkali màkka yépp faatu ñu ci bari umayatum nu xalaf ak yeneen ponkal ci notable quraysh yi abu sufyaan nag fekkewut woon xare boobu xare boobu mu ngi amoon yowmul jumaa ci atum ñaareel ca gàddaay ga rey nañ ci yéefar yi soixante-dix jàpp ci ñoom soixante-dix kon cent quarante kii dem na ci ñoom xaswatu uxud moom mu ngi amoon ca atum ñetteel ma at ma ca topp ca la xaswatu uxud am booba jullit ñi ci lañ ëpp ñi demut woon badar ñépp dañu ne dañuy dem dabaatali dal di dem waaye ci xaswat uxud bi ci lañ rey ci jullit ñi ñu bari ci lañ rey Hamza ibn Abdul Muttalib xaswat uxud bi rey nañ ci soixante-dix ci jullit ñi jàpp ci ñoom ay dañu dañu rey ci ñoom rek mushrikoon yi moom jullit ñi rey na ci ñoom ñaar fukk yaakaar naa ni ak ñaar ak détails yi nga xamante ni moo am ca xare ba yépp ala kulli xaal xare moom noonu lay demee yawmun laka wa yawmun alayk lii waral defet bi nag li ci bokk bokk na ci mooy wàcc ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci plan bi mu tegoon ci guerre bi ndax ñi nga xamante ni ñoom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxoon ay xeej ay ay ay bopp fet ñu yéeg ci kaw montagne yi ndax ñoo fa jiitu teg seen plan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne bu leen wàcc montagne bi mukk ilzam il alzimu amakinakum sawaun tasarna amin kasarna seen place yi ma leen teg bu leen ko wàcc mukk buñ ñu gaña ak buñ ñu gaña bu ñu ngeen ñu bu ngeen ñu seenan ñu denu daggate bu leen wàcc bu ngeen seenan yéefar yi ñuy daw bu leen wàcc yéefar yi di daw ñenn ñi ne ak xare bi jeex na yéefar yi daw na daal di wàcc montagne bi Xaalid ibnul Walid ak armeem booba Xaalid fekk na tuubagul jaare ci ginnaaw yéeg ci kaw montagne bi faagaagal la fa des tiim jullit ñi rey ci ñoom lu bari foofu li waral defet boobu foofu la jaare waaye mettiwut nag metti comme ni defetu Badar meloon ci yéeféer yi ndax ñoom dañ leena ray bu baax ba pare jàpp ci ñoom ay prisonniers nee na almasdaril biidi xumran baadama waradat min al ida kulla muswaddin min al limami almasdar yi ña di way diri ñoom saxaaba yi albiidi jaasi ya di way weex xumran ñuy way xonq bi ñu ñibbisi baadama waradat ginnaaw ba mu rotee jaas yi man ginnaaw ba ñu rotee minal ida ci noon yi kulla muswaddin bépp aji ñuul minal limami ci ay njañ lim bëgg a wax mooy saxaaba yi ridwanullahi alayhim bu ñuy dem xare ba seen jaas yi day weex tàll ak ñaw waaye bu ñu ñibbisi day way day xong cor ndax li mu jaar ci baatu noon yi li mu jaar ci baatu noon yi moo tax mu ni kulla muswaddin min al limami mooy limam mooy njañ mooy fii fi karaw yooyu di sax di wàcc ci loos bi mu ni wal kaatibiina bi sumril xatti ma tarakat aqlaamuhum xarfa jismin gayra munajimin saxaaba yi la xabaar mu ni wal kaatibiina way bind yi bi sumril xatti ci sumrul xatt sumrul xat am na ñuy wax ni fett la guy gu ñu liggéeyee hind wala dara ala kulli xaal xeetu xeej la bu muy melal mu ni ma tarakat bàyyiwut aqlaamuhum seen xalima ya mooy xat mooy mooy mooy da koy nuróole rek mooy seen xeej ya xarfa jismin benn petu yaram maanaam fenn ci yaram wi xayra mun ajimin te tombuñu ko li mu bëgg a wax mooy ñoom daal seen xeej yi du bàyyi benn yéefar te te te te jamu ko ko seen yaram yi bàyyiwu ca dara mu nuróole ko alkaatib bi sumril xatti shaaki silaaxi lahum siima tumayizu siiman tumayizuhum wal wardu yamtaazu bi siima min assalami mu ni shaaki silaaxi way ñaw ji ay jaasi lan lahum ñeel na leen siima màndarga tumayizuhum boo xam ni dana leen ràññetle wal wardu mu ni ward fleuru ward yamtaazu day ràññeeku bis siima ci màndarga mina salami ci fëlëru salam wala garabu salam ala kulli xaal muy saxaaba yi ridwanullahi alayhim nu ñi nu keneen mel ci xare tamit ñoom am na màndarga bu ñu leen di xàmmee simaahum fi wujuhihim min athari sujud ñoom dañuy ràññeeku ak ñeneen ñi mu ni tuhdi ilayka riyaaxu nasri نشرهم فتحسب الظهر في الأكمام كل كم تهدي داي جبل إليك جمتيا ولا رياح النصر نجلا والغنياي إليك جمتيا صلى الله عليه وسلم نصرهم أك ختم فتحسب غدال دي نجورت خيتو غنياي غوغو باي جمتي خاري بي donc da ngay dem ba dalay xeeñ ba mel ni fëlër mu ni fa tax sa boo nga njortu ko ak zahra fëlër kulla kamin bépp kàmbut wala bopp bépp aji nëbb fil ak maami ci kàmbut dafay melal rek ni fleur boo xamante ni dafa nekk ci biir kii yu fleur bu bu tojagut fleur boo xamante ni tasagut mooy tótóor bu tasagut mooy fleur boobu ni mu ni mu ni mu def noonu di xeeñ noonu lay nuroo leen riyaaxu nasr maanaam xeetu ngañaay wala tamit riyaaxu nasr yi nga xamante ni yàlla daf ko daan yabal su ñëwee mu xeeñ jullit ñi ñu xam ni nag ndimbal ñëw na lu demee ni ki xaswatu xandax suñu borom yabaloon na saxaaba yi ngelawu ngañaay ba moom moo fa dàqe yéefar yi ka annahum fi zuhuril xayli nabtu ruba min shiddatil xasmi la min shiddatil xusumi ka annahum dafa mel ni ki ñoom saxaaba yi fi zuhuril xayli ci ginnaaw fas yi naaru góor yi seen ginnaaw seen fas yi nabtu ruban comme gàncaxu tund mooy gàncax gu sax ci montagne mu ni loolu nag min shiddatil xasmi ci seen taru takku la maanaam dogu gu ñu dogu waaye laa min siddatil xusumi du rek ci dëgërub nuxura mooy li ñu takke teg teg gi ñu teg ci kaw fas wi liñ koy takke mooy alxusum nuxura mu ni ñoom ni ñi def ci kaw fas yi duñu daanu dëgër ci këkk seenug dogoo leen ko may waaye du seenug takku ci kaw fas yu ba ba mu dëgër nee na taarat qulubul ida min basihim faraqan fama tufarriqu bayna albahmi walbuhumi taarat mu ni naaw na qulubul ida xoli noon ya min basihim ci seenug tar ma min basi saxaabati faraqan ci tiit fama tufarriqu mënoo tàqatle mukk baynal bahmi ci diggante bàyyi ma wal buhum wal buhum wal buhami wala wal buhumi ak ab sang bahm jamcu bahima wal buhmu jamcu buhmatin al bahm mooy bàyyi ma wal buhu wal buhumi mooy ab ab sang mu ni mënootoo xàmmee nag lii di daw nii moom ak jàmbaar jala woon wala gàtt bu gaynde tiital mu ni waman takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu l usdu fi ajaamiha tajimi wa man képp koo xamante ni takkun nekk na nusratuhu ndimbalam bi rasulillahi ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam intalqahu donte dafa taseeg sax moom al usda gaynde fii ajaamiha ci ay gottam tajimi mu dal di wedam ku dimbandi ko yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam bu tase woon ak gaynde sax gaynde du la songu mu ni walan tara min waliyin gayri muntasirin bihi wala min aduwin gayri munqasimin mu ni walantaraa doo gis min waliyin ci bépp ci benn waliyu boo xamante ni xayra muntasirin du dimbandikoo yàlla ci ngañaay du dimbandikoo rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci ngañaay man nga maas xayri man nga maas xayra ci bële tamit man nga maas aduwin xayra man nga maas tamit xayri lépp ci walantara bële xayra muntasirin bihi ci sallallahu alayhi wa sallam wala min aduwin wala ci benn noon xayri munqasimin boo xamante ni du muy ku ñu dog moom daal awliyaullahi suñu borom daf leen dimbali awliyaau sheytaani suñu borom daf leen di dog loolu rek la bëgg a wax axalla ummatahu fi xirzi millatihi kallaysi xalla ma al asbaali fi ajami mu ni axalla wàcce na moom sallallahu alayhi wa sallam ummatahu aw xeetam fi xirzin ci kaaraange fi xirzi millatihi ci kaaraange xeetam milla mooy mooy diine al milla kallaysi nekk comme gaynde xalla boo xamante ni wàcc na maal asbaali ànd ak ay doomi gaynde mooy gaynde yu ndaw yi fii ajamin ci ab got gaynde su wàccee gaynde gu jigéen gu wàccee ay doomi gayndeem yu ndaw ci got nim leen di sàmme mu ni noonu la sallallahu alayhi wa sallam sàmme diineem ji moom ak ay saxaabaam kam jaddalat kalimatullahi min jadalin fiihi wa kam xasamal burhaanu min xasimi mu ni kam jaddalat wala kam min jadil min jadalin bari na aji dàggasante ba xam te ne jaddalat nërmel na ko kalimatullahi baatis buur yàlla bi muy alquran fiihi ci moom wa kam min xasimin bari na aji xuloo joo xamante ni xasama gañe na ko wala waaw gañe na ko alburhaanu ay lay képp koo xamante ni dàggasante moo la indi nee na alquran nërmeel na ko ci dàggasanteem boobu képp koo xamante ni tamit dafa ñëw di barib xuloo alquran indi na ay dalil yoo xamante ni yu yu mën a dog ab xuloo la dali ay dalil xaati yoo xamante ni dafay mën a dog xuloom xamante ni dafay deñal xuloo ba dootul amati lu mu wax moo tax mu ne wakam xasimil wakam xasamal burhaanu maanaam dog na wakam xasamal burhaanu min xasimin wakam min xasimin bari na aji xuloo joo xamante ni xasama dog na ko al burhaanu layya nee na kafaaka bil ilmi fil ummiyi mucjizatan fil jahiliyati wa ta'dibi fil yutumi mu ni kafaaka doy na la sakkay bil ilmi ci xam-xam fil ummi yi ci nekk koo xamante ni illettré la jàngut mu'jizatan kéemtaan koo xamante ni jàngul ba pare di wax xam-xam boo xamante ni dafa yéem ñépp loolu doy na mu'jiza mu ni doy na ba tey fil jahiliya ci ak yaroo ci ak jahiliya wa ta'dibi akub yar bu mag fii li yutumi ci ak njirim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jirim la te moo ëpp yar nit ñi moo ëpp ñëpp yar kon suñu boroom li mu wax ne ni que li yonent bi wax ni addabani rabbi fa ahsana ta'dibi niki noonu tamit kenn ëpp ko xam-xam te kenn mën mësta gis ni téere bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko bind kon baasa fil ummiyina rasulan moom xamut woon maa kunta tadri mal kitaab wala al iman luy bind ak luy ngëm yooyu yëpp xam ko woon waaye suñu borom sallallahu suñu borom taala moom moo ko xamal lépp loo xamante ni moom la xam kon loolu mu'jiza la ku nekk xam na ni jógewul ci nit niki noonu tamit dafa yaru ci ak njirim waaye moo gën a yaru ñëpp comme addabani rabbi fa ahsana ta'dibi foofa la buntu bi yam ci bind bi ñëw insha allah ñu jël juróom ñeenteelu bunt bi daal di jël fukkeel ba daal di koy tëj insha allah wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu